Amadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjoon ci boobu rek la ñu duggee ak yéen ci yàkkali gi wutali diwaanu Ndar diwaan la boo xamante ne ji nee nañu euh, doomi Sénégal yi faatu ci géej gi bu yàggul ci bateau ci gaal kon bu tàkk ci biir géej la ci ëpp fa la ñu fare ci woyu le wàll maire bu Ndar di Mansour Faye yëkkati kàddu euh, jëm rek ci gone yooyu ci li ñu ko waxee ñoom xibaar yi ñuy jot matuñu ñaar fukk fukk ñett lañ leen wax lu aju ci meneen mbir jëm ci gone ak tàggatu yi nga xam ne war nañ la ba ñu mën a am lu ñu toggee dëkk ba Mansour Faye joxe na ci xalaatam ñu déglu ko moom Mansour Faye maire bu Ndar. damay vraiment di mastaw d' abord njaboot yi nga xam ne tiis bi moo leen dal. Euh, luñ ci am comme information bëriwul. dégg nañ ñu bëri maanaam ñàkk dañ ci seen bakkan. ndar gii ma nekk nga xam ne suñ borom moo ko dénk. Euh, pour le moment ci lu ma xamagum. am na au moins fukki ndaw ak ñett yu ci ñàkk seen bakkan. pour le moment xëy na am na ñeneen ñu ngi koy wax mais amaguñu lu ñu leer. Euh, te gëm naa dal na li dar dal ndar dal dal na ñu bëri. ci Sénégal. donc euh, léegi lu ma ci mën wax mooy il faut ñu xam lan moo tax ndaw yi di dem hein euh, tax ñuy dem euh, pourquoi ñu yaakaar ni fële moo ëpp possibilité alors que ñëpp xam nañu foofu demeetul noonu il faut ñu waxtaan ci bon état bi am na motaay xam jël na ko peut-être par rapport à la DR xëy na il faut ñu améliorer davantage mais aussi peut-être ak lu ñu wax les compétences transférées fexe ba nga xam ni peut-être au niveau des communes dañu am liggéey yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy jox ndaw yi. mais am na leneen loo xam ne peut-être il faut ñu ko. mais mooy ñi ñi amee mbir mi les passeurs rek ñi koy organiser. il faut ñu sanction bi gën a tar. même bu ko président sax bu ko mënoon criminaliser. dana tax ñu bëri euh, peut-être maintenant dootuñu tenter ni dañuy organiser de telle chose et ça euh, moi je pense que lu def ci réflexion bi la bokk. Euh, dana tax xëy na mbir mu wàññeeku mais ñu créer du travail pour les jeunes. lu ci dem ndax na peut-être tentation bi dootu dana wàññeeku dootu amati. des ba léegi ci diwaanu Ndar googee ak seetlu ba ñu fa am mu di nee nañu ñi faatu ci euh, mbëkk mi euh, keroog ci accident bi amoon ci digg géej ci bato bu gaal gu tàkk kon ñi ci pufa la ñu fare seetlu gi moo di ci diwaanu Ndar donte am na fay école ak i centre de formation ki programme yoo xam ne dañ koo teg ngir jàppale ndaw ñi terewul immigration clandestine moom di mbëkk mi maa nga fa lu aju ci doomi yi di sàkku nag indi aw doxalin wo xamantene ji day koy jaglel walu formation cim xëy ngir gune yi am ci luñu xëy waye jàppale njabot yi nga xamantene ji seen loxo jotul seen ginaaw euh bañu mën jàppale seen mbok sa ko ñu ci nguur gi ñu gën a dooleel maanaam ñu gëna taxaw kon ci xex li nga xamantene ji modi walu immigration waye sa wax ak ñi nga xamne ne ñoo nekk ci rew ngir ñu sensibiliser ñi bëgg dem bañu xam lañ fay fekk ba du leen jaralati yenn yi Mouhamed Nabi Silla

formation professionnelle ba ñu ubbil leen ñu am seen liggéey pour mën jàppale seen bopp jàppale seen ay waajur gis nañu direction sénégalaise de l'extérieur mi ngi def liggéey bu extraordinaire ñu ngi ñaan yàlla état bi président na leen gën a dooleel na leen gën a jàppale. Lamine Diarra di jàngalekat. xam leen ni tey jii dañu war a dëppale bëgg-bëggu xëy ak njàngub gone yi ba kenn ku ne mën a jëriñ réewam. ñuy commencé boot ay école professionnelle pétavin am na fa am na yeneen ak yeneen yu ñuy defar xëy na le temps au temps mbir mi dana mën a soppeeku. que c'est des formations adéquates ou pas. une introspection. Cheikh Ndiaye nekkoon émigré ci itali dellu si ci dëkk bi yong butigam di liggéey xam leen ni coono gu gone yi nekkee ci seen i kër moo tax ñuy faral di dem. waaye war nañu fexe ba yokk tàggat leen ndax nag dugal ko fa mën a jëriñ dafa war a fekk nga am formation lu ni mel war a tax sax ñu bàyyi xel émigré yi demoon ba dellu si ci seen i xalaat ak seen i gis-gis ngir gone yi mën a toog. ñu gis ñu dugg si gaal yëpp mooy yoo xam ni amuñu lu ñu jàpp wala amuñu dëkkuwaay. tey buñ la yóbboo fu mel na Ross Béthio wala bàngo wala feneen nga am fa tool boo bàyyee boo wàccee da nga ñëw ubbi sa kër nga dugg kër am ndox am courant.

coordonnateur forum social sénégalais di Mamadou Mignane Diouf moom na plan Frontex bi ñu tegoon ngir xeexe ko immigration clandestine di tukki bu jaarul ci yoon programme la boobu la ci dem ci xaalis bëri na te njariñ lu toll ni Mamadou Mignane Diouf mi nga ci rajo future Média moo ne ganu RFM matin. Frontex bi nu ko taxawalee ci at boobu ñun dañ leen ne ñun ci Frontex en tant que fédération des plateformes africaines migratoires man maa ñu def fa xaalis gu bëri gis nga Frontex bés bu yàlla sàkk budget bi ñuy dépend bu ñu lay jox capacité dégagée un budget par mois par par jour c'est un million cinq cent d'euros ba léegi nii ba tey jii ñu toog ñu ne leen un million cinq cent boobu d'euros daanaka sept cent millions francs CFA très bien ñu ne leen mais loolu xaalis boobu waleen ko jëlee ngeen jox ko suñu réew ci seen coopération bilatérale am na lu mu moon fànq dootu leen dugal ci ay seeni pirogue ci gaal gi ci géej gi di di ko def carburant mais ñom li leen gënal moy que ni ñu xamné seen bop ñoy assurer sécurité géej bi ben benn africain mën baña bañ dugg ci seen ci seen frontières yi. loolu itam fay fekk ni il faut que ñun suñu état yi itam am maqama am doylu go xamanteni itam ñom seen bop am nañu politique commune de migration. bo xamanteni ni bu ñu tolloo foofu itam ñu am xeyna ben force marine bo xamanteni c'est une force marine conjuguée Sénégal Mauritanie euh, Guinée-Bissau Guinée-Conakry Maroc ainsi de suite. donc ñi doon sauver xalé yi wa Frontex la mais Frontex amna fi sax amna sax sax fi base bo vérifier bu baax fi ci Dakar Frontex fay liggéey ak ministère de l'intérieur. Mhm. di est jox souvent ay jumtuwaay wala di len jappali ay donc motax vous ji jii mënuñu mën ñun mën a suñu capacité de gestion migratoire ak l'Union européenne té fekk que l'Union européenne amna une politique un moyen dégager des ay ressources ak ay armées de force de sécurité te ñun amuñu loolu. njiitu réewum France di Emmanuel Macron kaddu yi mu yëkëti eh, teg ci derab l'islam bari ñu mu miti ci aduna bi fi ci Sénégal am nay activiste yoy mer nañu ci lool sababoon tay ji ñu bëggona a amal ab janook taskatu xabaar yi ngir jébané ko place de la nation di place Obélix fa lañ ko bëggona défé way waaye yëf yi mujjuta antu keneen ku ñu méré ci yëf yi moo Macky Sall président bu Sénégal ndax ñom activiste yoy gis nañu né moom Macky Sall li Macron def euh, complice la ca. Anna Rocha yëf yi dafa faf gaaw lëpp lëpp matul fukki simili ñetti ndaw sol seeni pantalon jean teg si t yu weex fi ñu bind nitu dëgg polis meeyu leen ñu def seeni déclaration fi ñu tàmbalee ci lañu dikk waaye message bi moom jàll na. ku nekk xam na France day combattre l'islam bëgg ko te ku koy jàppale ci yooyu du kenn ku dul président Macky jéem nañ jéngu yuuxu nañ waaye taxul policiers yi dugal leen seen biir oto foofe nag tuuti la mbay ñaaw saaga yi di jipp ba commandant bi bëggoon a saafonte ak kenn ci ñoom beneen ndaw moo jël initiative u calmer leen nee na policiers yi amuñu benn problème ak yéen. seen problème ndaw yooyulee mooy képp ku joxul l'islam cër bi war waaye itam képp ku ñàkk condamné manque de respect boobee Anna Rochalita Lopez fay dolli ci rek ne ñi ñu teg loxo bokk ci nitu dëgg ñu ràññee ci Abdou Karim Gueye di xurum xaq Thierno Mohamed euh, Sall ak kii di Ousmane Sarr bokk ci kuréel gi di nitu dëgg jamono jikkoon ñoo nga ci commissariat bu Médina FRAPP France dégage di ñooñu Guy Marius Sagna yi ñoom it ñaawlu nañu lool lu aju ci kàddu yi Emmanuel Macron yëkkati gàll ci ndoddal diine l'islam plateforme boobee di sàkku ci ñu wan ginnaaw du moyu bépp produit boo xamante ne ji France lay jóge ba france yee ko moom muy ci dund gi di ci wàllu essence beek yemu àndal lu France moom rek nañ ko teg ne tege ndax li ñuy wax dara gën a koo ñaw loole Guy yu Sagna moo ko xam ne si laa la ko wax. doomu France yooyu def loolu ki nga xam ne moom mooy président France muy Macron da leen jàppale ci loolu or dañuy fàttali ne ngëm dañ ko war a sàmm dañ ko war a respecté même bu dee benn nit ñaari nit ñoo am seen ngëm-ngëm dañ leen war a respecté rawatina nag diine joo xam ne fii ci Sénégal moo ci ëpp doole foofu ca France moo ci ñaareelu diine ngir ñaawlu loolu moo tax ñun waa FRAPP ñuy woo citoyen sénégalais yi ñu bàyyi di jëfandikoo

fan yii di ñëw nag dinañ yaatal dëdd boobu ci yeneen marchandises yoo xam ne ay marchandises yu bàyyeekoo France la ci yeneen entreprises yoo xam ne ay entreprises yi nga xam ne doomu France moom moo ko moom ba keroog nga xam ne France dina bàyyi foowee diine l'islam bi muy foowee ba keroog bi nga xam ne France dina bàyyi di wax ne diine l'islam euh, diine diine fitna la. Guy Marius Sagna rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg yi 13h13 ak RFM kumpa jeex gannaaw ñetti fan yoo xam ne amal nañ ko doon ko waxtaan ca mbongoon l'aile civil ak politique bu faction jàkkaayu MFDC am na fu ñu déggoo déggoo ci kaw yi kàddu wax ba yeew ngir tey mën a kon wane seenub taxawaay ci waxtaan wi ñu amal ngir jàmm sax ca Casamance Casamance Lamine Ba. aile politique bu jàkkaay waxtaanu ñett fan yi nga xam ne sumboon na ko ci mongon daanaka jeex na tàkk waaye li nga xam ne nasoon nañ ko ci objectif daanaka jot nañ ci ndaxte li ñu bëggoon mooy waxtaani taxawaay bi nga xam ne nag moom la ñu fas yéene am ba u bi ubbi ay manifestation digganteem ak MFDC Seyni Badji moom mooy rek kàddu Assane Nga dañu xalaat ne euh, euh, euh, quarante 40 ans 40 ans de de violence 40 ans de crise loolu dafa nara dafa nara dafa nara jeex et c'est ainsi que ñun MFDC Assane Nga dañu xalaat ne dañu ne ñun lu ñu gënal mooy ñu toog ak Sénégal ñu waxtaan. kon comme ñun dañu bëgg a toog ak Sénégal ñu waxtaan. waxtaan boobu euh, si français dañu ko ne négociation dañu xalaat ne négociation boo koy wax. boo naree dem négociation da koy partager ak ñi ñi pour éviter que. yow nga dem négocier dégloo ñi ñi lu ñu wax xam la lu ñu wax. nga ne da ngay négocier c'est fort possible nga commettre ay erreur waxtaan woowee nag waa MFDC nee nañu rafetlu nañ ko bu baax a baax ndaxte li ñu seetlu mooy am na ñi nga xam ne seen tur fës na bu baax a baax ci mouvement bi daanaka ànd nañ ci doxalin wi. Kourma Sané Che Koli Mamadou bi qui sont Assane Badji tous ceux-là ont donné leur point de vue par rapport à ça parce que nous avons dit il s'agira peut de définir quels sont les enjeux dans un cadre de négociation et quels sont les défis à relever et chacun a dit d'après lui

Eh, xamle ay matuwaay yoo xamante ne sàkku na ci ñi indi nit ba ña fay ñëw ñu wàccoo ak moom bokk na ci ne léegi du ñu nangu kenn koo xamante ne ji sa yat ëpp na juróom fukk ngay dem di umra ji lu mel ñi yóbbu ujaa ji ñu ñuy umra ji nu ñu ko jàppee ki nga xamante ne ci eh, moom eh, moo di Houraye Thiam Pereira indi euh, na ci ay kàddu leeral fàtte moo ne kon mooy porte parole bu regroupement national des organisateurs privés du hajj et de la umra au Sénégal Houreye Thiam Préra xaw na metti parce que xam nañ ne Sénégal ñiy faral di dem umra ak ñiy dem ak d'habitude dañuy ëpp juróom fukki at donc juróom fukki at buñ ko defee âge maximum bi dina xaw a metti tuuti même ñiy faral di organiser dañuy faral di am lu ëpp juróom fukki at oustaz dañuy faral di am lu ëpp juróom fukki at mais pèlerin yiy dem umra bi dañuy faral di am lu ëpp juróom fukki at donc am na nag ñu am lu yées loolu mais bariwuñu donc loolu tamit dañuy ñaan xëy na Arabie Saoudite phase test la nekk dafay reprendre bëgg respecter geste barrières yi mais bu ñu demee ba ci kanam ba gis ni yëf yi nit ñi ñi ngi respecter geste ba mesure barrières yi ñu yokk âge bi yóbbu ko ba au moins sax même bu dee juróom fukki at ak juróom sax ko defee nit ñi mën a def test bi mën a reed yi mën a dem si jàmm dellu si jàmm maintenant nag lu nar a metti la parce que ñëpp xam nañ ni Sénégal moom lii tàmm di dem ay ñuy doon yeneen dëkk Europe yeeg dëkk Asie ñoom ay ndaw ñooy faral di ñëw umra mais ñun suñu dëkk yi ay mag ñoom ñooy tàmm di ko dem dem si ñi nga xam dañ atteindre âge retraite wala yooyu ñoo koy faral di def. ndax yéen pour umra bi amoon ngeen ñu inscrire ñu am lu ëpp ans ak naka ngeen fas yéene def ak ñoom. ni dogal bi moom bu wàccee ci ñëpp lay appliqué wu maintenant dina laajaat ñu réadapté wu waat dina laajaat ñu xoolaat encore xaaraat encore ba ba loolu possible parce que tamit il faut ñu respecter règles yi nga xam ne moom lañu fixé te tey buñ ne ko ëpp juróom fukki at doo dem loolu tamit dañ koy appliqué rek ne ko ëpp juróom fukki at doo dem maintenant nag mën nañoo ñaan ci ñu yokkal ñu te loolu tamit la ñuy ñaan ñun privé yi ñu ngi ñaan Arabie Saoudite bu demee ba ci yàgg mu yokk âge bi bu ko defee nit ñi a dem mën a par le regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Oumra au Sénégal. waxtaanee leneen ci xibaaru digg bëccëg gi woppi coronavirus jeeg tolluwaay gi gannaaw diir boobu doog nañ ko dégguñu nit ku ñàkk bakkanam démb am na ko faatu ndax Covid 19 bi limub ñi faatu ci réew mi ndax corona mi ngi toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaari doomi yaadama ñu nemmeeku it ne ci 24 heures yi ñu génn fukki nit ñeent corona nañu ca ñooñee nemmeeku nañu ci lu aju ci ñaari cas contact juróomi cas importé ak juróom-ñaari cas communautaire ci cas communautaire yooyu yenn yi ñu ngi Ndakaaru yeneen nit ñu ngi leen nemmeeku. Eh, ci diwanu kees kees goge, fa la ñu jëm ak tailleur ya fa jamono ci mbass mi duggé ci réew mi ñu eh, fëggoon len ngir ñu ñawi masque ñu def ci seen kemtalaay katan dajale seen i ki ak seen i daqaar def cay masque boba ba léegi nag seeni koppar joxuñu len ko mo waral ñu bëggoon a dem sikki mujj meer ba taala si la ngir ñu fay leen yëf yi juróoni xëqante li ñu bëgg nag mooy nañ leen jox seeni koppar ndax ñoom la ñu warloo woon ak ñi santoon defaru masque yi def nañu ko nañu leen fay ndax yaakaar lañ ci wékk Cheikh Anta Diop bari woon nañ lool ci buntu meeru Thiès takk nag ay morso yu xonq di ay téer nekk fii ci diwaan bi ñoom dañuy sàkku nag ci taal si mi nga xamante ni mooy maire ab Thiès mu jox leen seeni koppar ndaxte nee nañ maire bii de ci mbas mi dafa leen commandé woon ay masque Mamadou Seck mi nga xamante ne moom moo yor kàddu téer yi nee na boobee ba léegi seeni koppar jotuñu sax xaaj bi. 100 millions xam ne bi fay war nañu koo fay jox ñu ay dell yu baree baree bari respecté wuñ ko ñu wax sunu maire dëkk nag mu fay ñu nañ ñu Talla Sylla li ñu koy mën a wax mooy muñ nañ ba amuñu fu ñu mënukaay yem ndax ku ñu xam ñun tëyëri xam ne ñun duñu sànni xeer duñu taal pëna duñu duñu saaga dañu toog suñuy machine di ñaw ma xaalis bi nag fañ ko jëlee ba ñaw ko jox ko mu séddale ko ci ceesuwaay yi wax dëgg yàlla waroon naa xalaat ni conséquences yi fa mu jógee cent millions la quarante millions la dugal mi ngi ci loxo président mais mun ñu ko séddoo parce que division lay indi quarante millions yi bu ko neexee na ko ñëw jëlaat tëyëri nag nee nañ bés bu nekk nag daañu jóg yuuxu te nag nas nañu ay pexe ngir amal ab doxam ñaxtu fii ci diwaanu cees ngir ñëpp nag jotee ci mbir mi. ñun wax nañ ni fii duñ ñu fi jógee chaque jour ndax dinañ am autorisation dinañ jalonné ci mbedd Thiès yi te bépp programme boo xam ne bii am na ko. ñun dinañ fexe ba bala koy def mu fay ñu sunu xaalis. ñun nag. suba teel nag la ay takk der wër meerub cees taxaw ci bunt bi geetaru ba ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy téyeer yi. ba ñu dooree dañ leen a yor ay lacrymogène ngir maire bi ak lu ko wër ñu bañ faa taxaw. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. laaj nañu waa mairie ba loolee tayoori kees yi di sàkku ana fan lañ ci toll nee nañ duñ ci tontu ndax coow ak bi coog mbaaloo la ñuy bañ li ñu mën ndox daal moo di seenub xaalis ma nga ca perception te lu yàggatul dara ñoom tayoori yooyee defaroon ni masque ñi war leen a fay daañu jot seenub xaalis. wàllu insertion professionnelle mu di ñi nga Yaladef ne dañoo amee laago bu nuppi euh, yalla def ñu ba mi diplôme nees di def ba li leen liggéeyloo ñom seen timi bop ñoko bëggal seen ci jëwreen gi ñu fonction publique ñu taxaw ci nu mu gëna gaawé ndax sonu nañu euh lu aju ci mi Macky Sall euh, ci ndaje conseil des ministres ñaar fukki fan ak ñett ci euh, wéru septembre Nenu ñu genn na ñu défé ko amal ab doxub ñaxtu àjjuma ji di ñew ci ndakaaru yi ngir dal bëgg ñu bàyyi leen xel kenn ku wax ci seen kàddu sëriñ Gueye yu yow mu jiite association gi leen jaboote ñu déglu kook Anna Rochal Lita Lopez Faye dañoo gënoon euh, fan yi def benn doxu ñaxtu président joxe ndigal mais jeunes handicapés diplômés yi nañu recruter dans la fonction publique euh, depuis le 23 mais bi mu joxee ndigal ba léegi euh, madame le ministre Mariama Sarr jëfewul ndigal yi et ñun en personne bind nañ ko mais ba léegi tontuwul donc nag ñu ne nag jot na ñu wàccaat yëgluwaat wax le président de la république monsieur Macky Sall mu jël dossier bi en main que ñun xaar nañ euh, ku xaar depuis des années bi président waxee itam euh, respect bi ñu ko jox moo tax ñu toogaat un mois mais dégguñu dara moo tax ñu wàccaat et incha allah ci kattanu suñu borom àjjuma bii di ñëw dañuy wàccaat ci mbedd mi pour benn joxu ñaxtu ñu ngi koy tàmbalee fii ba rond point RTS parce que actuellement gis nañ ne daal Euh, mënatuñoo xaar instant bii nii léegi dañoo bëgg président de la république monsieur Macky Sall mu jël dossier bi en main parce que yoon daf ne 15 pour cent dañ ko jël jagleel ko jeune handicapé diplômé yi mm. mais walaay resool nañ ko respecté ñun ñaanu ñu de li ñu moom la ñuy laaj mm. et c'est facile bu ñu ko bëggee état bu ko bëggee def dafay def actuellement ñi am ay formation professionnelle mm-hmm. euh, toll nañ ci presque 20 ou 25 waxuñu ñu dugal ñëpp de parce que loolu mënul nekk mais nañ jël ñi nga xam ne am nañ am nañ formation professionnelle mm. ñu dugal leen dans la fonction publique ak parapublique

que dibéer bi ñu génn Saourou secrétaire général euh, syndicat googee am nay kàddu yu leeral yu mu ci baaxee gouvernement au Sénégal ci li ñu liyee ak ñoom am na benn protocole boo xam ne am ci poñ yoo gouvernement bi yeeyitu ci yàbbi euh, li nga xam ne mooy question payooru agent fonction publique rapport bi déjà mu ngi ci table président de la république et depuis lors kenn waxatu ci beneen aspect bi mooy lenteur administrative yi avancement yi intégration yi validation yi tardé yu ñuy tardé amoon na benn lël bu ñu defoon sali ak au comité ADIE à fonction publique à éducation nationale à partenaires yi les conclusions que nga xam ne ñoo qui ont ci ndaje boobu ba alors que processus bi quand même liñ ci tegoon bu doon commencé woon nañ ko rek yenn paparas yi nga xam ne dañ koy laaj nit dañ ko a dépasser de modernité permettre na ko Il y a des questions de gouvernance ñi nga xam ne mise en position des stages concernés ñi nga a des prof d'éducation physique qui ci en situation ñi nga a des mooy impôts question yo xam quand même japon nañ ni comme situation d'accalmie à gouvernement bi dina def ay mais Diego yoyu manquait na pour nous gis importance ou impact

du reste amnestie Amnesty qui euh, ne Fatima Diop lay wuyoo. communiqué bi mi ngi wax ne ne euh, nit yu bëri lu mat juroom ñent nit euh, la Amnesty documenté waye organisation yenen ni ngi wax lu ëpp ñu ngi leen di ray at at ay fetal Amnesty International tamit xool na ay vidéo yu ñu authentifier analyser nañ ko at suñu ay experts li ñu jot a gis ne euh, ñu ngi euh, utiliser ay gànnaay di rey euh, ay manifestations alors que droit international ak yëfu maintien de l'ordre bàyyiwul ne ay taqadeer yu yore ay armes nekk di encadrer ay manifestations militaire place am du ci ay manifestations si guerre mooy place am waaye pas si manifestation donc ñoom ñu ngi li ñuy laaj mooy autorités yi ñu daqal loolu bàyyi ko léegi léegi nii te ñu ubbi ay enquêtes. ngir xam ñan ñoo rey euh, ak gaañ ak ay ngàndaay ñooñu doon manifester. ab mission diplomatique internationale nag mu nga ca Conakry démb ba léegi démb dimanche ña ca bokk waa mbootaayu xeet la Union africaine ak CEDEAO Jean-Claude Kassibrou Mohamed Ibn Chambas ak ñeneen dañoo bëgg daal maanaam euh, dal delluwaat euh, ca dëkk ba ca réew ma euh, ndax nemeeku nañ ne ab tension dëggantaan ay nit sax ñàkk seeni bakkan gannaaw élection présidentielle ba ca Mali moom ñii di administrateur civil yi door nañ alterné tey gii ni ab grève wi nga xamante ne grève fukki fukki fan ak juróom la seen syndicat li mu bëgg moo di ñu fay yenn ci ay prime ak itam ñi nga xamante ne ñoo di préfet ya grève boobu mu ngi ñëw gannaaw bi ñu defoon ab marche de protestation bu mag a mag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre gi ñu weesu. ñu dem ci réewum Cameroun gars yi ñoo ngi wéy di ñaawlu ba léegi jëf ju ñaaw jafa amoon mu di. juróom-ñetti élèves yooyu dañu leen a faat leen nag ca euh, wàll wa nga xamante ne ji ma nga ca Cameroun mais ña fa ña fa dëkk dañuy ñoom anglais la làkk. ay nit ñu yor ay ngannaay ñoo dugg ci école privée boobee samedi gi ñu weesu dóor leen ay bal nootin la ñu ñàkkee seeni bakkan njiitu commission bu union africaine mbir mi métti ko lool bi mu ko déggee noonu itam la demee ci euh, ambassadeur bu France foofu ca Cameroun waa union européenne ñaawlu li nga xamante ne moo di ni ñuy bun xattaal ak ak yelleefu doomu adama ci wàllu droit international jëmale ko ci civil yi. États-Unis moom li ñu bëgg moo di euh, ñu jeexal wala bokk violence yi dakk jeexle kook euh, wooteeg boycott produit français gannaaw euh, kaddu yi nga xamante ne moom la Emmanuel Macron yëkki jëm ci wàllu caricature euh, prophète Muhammad ab campagne bi nga xamante ne door na àjjuma gi ñu weesu ca Koweït ca Qatar moom enseigne bi di alraw Raw nag moom nee na lépp lu jëm ci wàllu produit français da koy génne ci ay rayon ba mujjee ba jusqu'à nouvel ordre mhm. ca Pakistan moom kilifa ya dañoo woolu ambassadeur bu France alternek tey gii nii ngir ñaawlu li nga xamante ne dañ koo jàppe dañ koo jàppee ab campagne islamophobe bi nga xamante ne euh, li ko tax a jóg rek moo di tooñ l'islam euh, jaarale ko ci ay euh, défense liberté d'expression heureusement ba Café Touba du produit français. <laughs> nañu wut suñu yëf. ah moo tax man nañ Café Touba heureusement ba du produit français ndax suñ ko doon boycotté dana mitti ci man lool. ah déet loolu moom kenn du ko ah, boycotté. yeneen produit français ñu mënta tudd fii nag Diop. <laughs> na nga góorgóorlu. <laughs> RFM Sport. voilà. Euh, Mamadou. Je <laughs> football générale stade de Boumbourg. Nous 8 novembre ah d'accord gën jaa sori ci boobu kon date bi jàppaguñ ko kii date provisoire la date provisoire la d'accord ndax dañ koo tëggoon démb mhm. euh, sumb ca waxtaan waaye dafa mujj am ay euh, yu ca gàllankoor benn mujj dem ca kanam préfet mhm. njiit la fa toog uutoo ko nekkoon njiit la di tekki ndombal tànkam di saalu Samb tudd Abdoulaye Gueye nee na ñi ngay waxtaan ngir fexe nu ñuy defee assemblée générale ba tabb njiit loo xam ne mooy doxal liggéey ba foofu ci stade de moom Abdoulaye Gueye jokkoo nag ñun ci suba si ndaje boobu ndaje boo xam ne la euh, dañ ci d'accord nag autorité yëpp surtout nag waa stade de Mbour yi maanaam monsieur le maire daje ak euh, les différents protocoles pour xool nu ñuy nu ñuy demee ci AG bi de manière consensuelle waaye yàlla def na loolu mënta mujjul a antu léegi nag dañu war a jublu résolument ci AG bi mu nekk AG boo xam ne day am ay ay élection loolu nag euh, koy def d' accord ci presque l' essentiel léegi dañu war a dajee ak préfet xam naa ne dans la semaine lay doon pour xool nag ñu demee ci assemblée boo xam ne dañ koy encadré ba may wax yow ni jàpp ñu benn date yaakaar naa ne bu ñu dajee ak préfet dinañ mën a jàpp date gën a jege possible parce que li ñu bëgg nag mooy jàll ci beneen étape ndax euh, coow li bëri na préparation li yàgg na waaye lépp fexe woon loo xam ne dañ koy def ci jàmm ak salaam xam nañ ne au plus tard le huit war nañ war nañu organiser at ci sa wàllub candidature da nga dëggal wala da war koo lëkkalool jébbal ko léegi yi pour candidature bi nag euh, xam nga man dama jàpp ne intérêt Fatou Ndoye moo war a jiitu lépp donc ñu ngi ci waxtaan bon jëm nañu waxtaan ñun ñett bu ñuy juboo dina maa ngi jéem a waxtaan ak ñenn pour ñu xool ñu ñuy demee ci ak benn candidature boo xam ne Fatou Ndoye yëpp ci gis seen bopp dërëm amul solo li ëpp solo mooy ñu fexe ànd ànd boo xam ne euh, ñëpp dinañ si gis bopp autour d'une équipe boo xam ne du yem sax ci candidat yi mais day jéggi candidat yi parce que bëri na ay autorités yoo xam ne fi mu nekk ni sa Mbour toll na foo xam ne intéressé na leen bëgg nañ cee ñëw jàpp te ñoo ñëpp war nañ leen xajal ñun ñëpp ñu ànd nag xool ñu koy tabaxee pour euh, avancer ci sa Mbour nu daal di wax euh, xabaarub làmb ji ministre de sports Matar Ba dalal na ci bëccëgub tey gii Modou Ndaw Tyson Euh, nekkoon fii roi des arènes ndaje ma nag moom Mout Ndao Tyson moo ca nekkoon ak ay directeur yu bokk ci ministère des sports jooja waxtaane nañu ci diir wu yaatu jafe-jafe tàggat yaram yëpp ci réew mi waaye rawatina wàllu làmb ji ñu njortu nag ni euh, ndaje moom a daal dañ ko sumb ngir jëm ci yeesalaat bureau CNC bi nu war a euh, taxawalaat ci weeru wii di ñëw loola nag di xabaar bu ñuy topp ba xam fan la wan di mujj ak i gëtam. ñu waxtaanee wàllu basket ak Saint-Louis basket club moom tàmbali na ay entraînement tey jii ci altine ji. takk nañu seen ay jàjj wut ay suwër ak i suwër yu yees la ñu bëgg mooy taxaw téema ba ren lépp lu ñu fi teg ci wàllu coupe nu gagné ko Soda Thiam jot na leen a yëddu tuuti. gannaaw ba ñu defee présentation seeni joueur ak joueuse niki Demba Saint-Louis basket club nak dina tambali waccayam niki tey jii ci ngone bu nu sukkandiko ci sen secrétaire administratif di Mansour Diop. bureau bi dirigé par le président Baba Tandian mi ngi réunir chaque semaine pour lépp li ñu war def administrativement ñu def ko nommé nañ entraîneur yu bees ci ci jigéen ñi ren Malik Bachir moy coacher équipe bu jigéen ñi côté goor ñi Ndiagaloo moy coacher équipe bu goor ñi tey jii incha taala sax ci altiné ji ci li ñuy commencé entraînement ci stadium Joseph Gueye jëm ci effectifu équipe bu Saint-Louis basket club yooyu le gis nañ si ñoo xamante ne dañoo dellu si waat waaye itam ay joueurs ak joueuses yoo xamante ni bi ci réew la ñu jógee am njaga jàpp ci ñun la jóge woon tam UGB léegi dellu si waat na ci ñun El Hadji Malick Xuma bi jógee Thiès beneen joueur boo xam ne raay la jóge moom tim am nañ benn joueur aussi bu jógee Guinée Bissau am nañ tim Pap Fay bi nekkoon victime day dellu si waat ren effectif bi bu dee ci côté jigéen ñi nag benn joueuse bu jógee Nigéria am nañ tim beneen joueuse bu jógee RDC Congo cosaanam Sénégal la mbëbët yu ñu tekk mu daal di antu ba tey ci ay kàddu Mansour Diop Saint-Louis Basse-Kër moom benn ambition rek la jël compétition buñ dugg rek ndam li lañ bëgg jël muy ci côté góor ñi muy ci côté jigéen ñi ndax ñun dañ tàmba gagné ci fàttali nag titre ya nga xamante moom la Saint-Louis Basket Club mujjee woon jël coupe du Sénégal la woon ci góor ñi waaye itam ab double coupe championnat ci jigéen ñi

ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf musiba mbaba kumba jëye giraawaali mbaa tooxi doona amul benn baat buy doy ngir misaal xibaar bi libération xëyee ubbil yéenekaay bi immigration clandestine mbëkk mi di gaaliloo ci yu gone réew mi jël wutali bitim réew tuddee ko Barcelone wala Barsàq lañu journal bi nañu lu doy waar moo ca xew keroog gaalu looco gu bàyyee ko woon ci réew mi yeboon lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama yu bëggoon dem Espagne gaal googe moo dem ba ca digg waaxi mbuuree tàkk fukki nit ak lu teg ci ñi newoon ca gaal ga journal bi ne nañu ci géej gi la ñu des ñoom ñaar fukki yooyu ak lu teg des ci géej gi ñoo nga dëkkee ci diwaanu Ndar ñi ca quartier Pikine ña ca des ca quartier Pikine 700 gaal ga ñu duggoon Xuuri Njaay la tudd libération nañu ten ak patrouille espagnol yi bu dul woon ak ñoom ak nappkat yi njëkk ca fa jëyee ja xewe kon lambay dina fi gën a ñaaw enquête dina kay nañu weesoogul ndax am na ay sources sécuritaires yu wax ne limub ñi faatu ci gaal googe fees dell ñi doon yóbbuwaate di les convoyeurs toll ci juróomi nit anki dina nee nañu teg nañu leen loxo suur soo xamal ñu ci xëtamu njëkk ne gaalu looco gu yaboon ñaari téeméeri nit yu bëggoon a wutali Barça ñu bari ci ñoom Barsàq la ñu ñaar fukki ndaw di ay jeunes la si ne nee nañu dëkk bii di ndar ñàkk na ko ci gaal gi tàkk biir géej keroog la tribune bind na jéyee ji romb na loole ñaar fukki nit yi faatu la xam waaye li réer di fay weeru dee journal l'observateur xëy dajé ak ñenn ci ñu newoon ca galga té yalla def ñu gën ci ak bakkan ñoo ngi nitil ci kay bi la xewon ak ni ñu ko dundé l'observateur nañu amna na benn waay boo xam ba ñu ñëwee nek ko sa dom dess ci géej ji momit fa la dess fi sa ci la faatu ca Saint-Louis bari na fay borom kër yo xamné ku ci togon ci nen jamono ji du toj ndax xamuñu seeni dom fan lañu faré dam beng Mbeng ci rescapé yi mi ngi wax ci l'observateur ni mbiri démé démit demit bay xam le ak li xew terewul tay ji bu gisaatoon gaal gu taxaw da ciy dugg dem Sud Quotidien mel ni ku naan ñu fim nek ni kay jamu jeexna Barça wala barça goney réew mi ñoo ngi takk jëkk mbëkk gaali loo cay wutali Barcelone ñaar fukk ci ñoom faatu nañu keroog biir géej ginnaaw bi seen gaal tàkkee ci diggante Ndakaaru Mbuur ak Ndar yéenekaay bi nee nañu teg nañu fi loxo téeméeri nit ak juróom-ñett fukk yu takkoon bëggoon a mbëkk gaali loo cay dem ci ñiy dem Sud Quotidien xamal nañu ne ay jigéen sax nga ca Les Échos xëy tëgg gémmiñam di woote wàll wuy wàlloo sunu gone yaa ngi des ci géej gi mooy li journal bi bind ci xëtamu njëkk jàppit ne li jur lii lépp moo di seetaan gu ñu seetaan gune réew mi ak ñu ñàkkum xëy moo leen dugal ci lu ak suur A mi ñu xamal ne ñoo ngi sàkku ñu taxawu leen ba condition yi ñuy liggéeyee gën a ñoŋ gën a mucc ayib gën a baax ba condition yi ñuy liggéeyee gën a ñoŋ gën a mucc ayib gën a baax keroog samedi ci la ñu ko xamle ci bëccëgu set setal gu ñu xëy woon ci njiital collectif des acteurs de la pêche du Sénégal àndoon ci ak waa UCG ak ñeneen ñu ñëwoon jàpp ci liggéey ba mu doonoon ci teewaayu ministre de la pêche Alioune Ndoye la Sénégal nañu moom Alioune Ndoye fa la xamle yéene ak dogu gu état bi am ngir gën a napp gi ci réew mi la Sénégal nañu aw na yoon it ànd ak ñi napp gi ci réew mi ngir taaral ak setal quai de réew mi këram moom Alioune Ndoye ci wàllu politique di parti socialiste jax na guddi yu ñu toll sursoi nañu li Serigne Mbaye Thiam bëgg mu dee ñu dakkal intérim Aminata Mbengue Ndiaye defi renouvellement akub congrès militant yu parti socialiste yee ca Nioro ànduñu ci ak moom Ali ak i naataangoom yu union des coordination de Nioro nee nañu kàddu yi Serigne Mbaye Thiam yëkkati ak ni mu ko defee dëppawul benn yoon ak li teg si parti bi digle wax na lu ko warul def na lu ko warul union des coordination de Nioro ni guddi yu ñu toll lenn rek moo war a doon yitte ci biir parti socialiste moo di fexe lu gën a dëgëral démocratie bi bi Makhtar di responsable parti socialiste li taxaw mooy taxaw ci renouvellement yu nekkee ci noonee ci la ñu mën a tànnale parti bi njiit ci anam yu jaadu Walfadjri nañu xeex bi am ci biir parti socialiste ngir tànnal parti bi njiit Serigne Mbaye Thiam ma ngay gën di néew doole ndëgër laay ma ngay gën di wàññeeku ne aw ñoñam di basam ca ñooro wan nañu ko ginnaaw nee nañu ànduñu ci li mu wax Mamoudou Wane li mu wax dina jur mbambu ci réew mi ubbil Vox Populi Mamoudou Wane secrétaire national à la vie bu parti socialiste nee na yegsik Aminata Mbengue Ndiaye ci bopp parti socialiste accident la il faut que dafay soppi aw doxin ak doxalin jema mat limu don su beugé ak dal am ci parti bi Mamadou Wane jóge ci dal ci Abdoulaye wilan wax ko musiba ak belengane yàq ko lol wéñ wu ci dal dé Universel pouce ak seen kénkéeri AAD Abdou Ali madjob ñoo leen don may li ci yene kay ben waxtu d'une heure fekk fanweeri minute ak juroom ñaar fofé kon lañu ñu yem ak yeen ci xibaaru digg ci gi Mamadou momé ndjay faré won ci kàddu geewoon bekté mu ya andon ci ak yeen Aliou Ba mo faré won ci machine bi service digital soxna